kaso ba ngay fanaani baa ñu rëfule la ci noonu lañ lay yoolee de. bëgg dëgg ak bëgg fataaya. fataaya c'est quoi fataaya. il est fataaya. Euh. <laughs> ah d'accord. <laughs> fataaya. très complet walaay walaay. macha allah jox la fataaya complet sànq la. <laughs> maa la ko wax de. ma jigéen. tey de mbenn daa dem fekkee loo xam ni daal. man ne mbenn lu ne moo koy fekk te man mbenn des fois suba teel gi nit ñi ndékki daal yu métti lay indi des fois waaye nag réew mi jomm jommet lañ wax ñii daal ay frère lañu mm. waaye lii xew ci seen biir bu xewoon ci jamonoy Macky sàll ak politique bi mm-hmm. lu métti la na xew ndax ci làmb ji la xew ñaari nit a rayante mm. ndax ëmm seen laa bëgg kii ni ko euh, euh, Sa Thiès laa bëgg eh, eh. Ah ñu bokk ndey ak baay kenn ka suuj moroom waaw laa bëgg. waaw mbiru fans daal. fans aywa mbenn problème kii sax. de am na bay boobu ma déggee mu ñëw de. Hmm? mi ngi ñëw mais dafa. Ah, kii naa gumis la. xam nga Gomis Gomis a nekk fii ëmma kaay ba bu ma yëkkatee li lu tax Gomis di fi ne. waaw Gomis wu fi ne. voilà. waaw bii la bii de voilà mi ngi noonu kon après maa koy réglé euh, après ñu kii ko incha allah euh, est-ce que du kii bi dina war de lii faral faraloo diw. ñëpp amuñu benn problème waaw ñu amuñu benn problème waaw seytaane moo ñëw quoi. waaw ki faat mooy mag ji wala rakk ji moom moo faat. rakk ji moo gaañu quoi. rakk ji moo gaañoo waaw. magam bi moo ko faat. magam mag yee ko rey waaw. ngeen xam problème bi nu mu demee. ñoo am nañ problème non seen problème nag moom naa daal seen problème moom exact daal daal. waaw affaire lamb moo leen seen warante loolu la waaw waaw. mag ji rakk ji mag ji kan la faat ban jour la faat rakkam ji. si guddi gi la si jour jour ëpp jour bi dañu kii te dañu face à bi bañ pare si face à face jour boo leen jour guddi woo leen coow guddi woo leen coow waaw. gudd googu leen jotale moo doon kon face à face bi doxoon ci diggante Eumeu Sène ak. waaw waaw moo leen boole waaw moo leen boole waaw. ki ñu rey fi nu mu tudd ki Fatou nu mu tudd. Fatou moom Fallou la tudd Fallou Fallou waaw. d'accord Fallou. après mu wax mu wax Fallou deewul Fallou deewul affaire yooyu quoi après waaw ci laa déggee loolu quoi. d'accord ndax jot ngeen a xam fan la ko magam ji jam wala xamu leen. non moom presque moom presque put bi la ko jam quoi. waaw fii nii fii nii quoi fii la ko jam quoi put bi. waaw lan la ko jamee paaka wala lan. waaw. d'accord Fallou moom nga xam ne tey moom moo fi jógee lan ngeen mën a seede ci moom yéen ñi nga xamante ne yéen ay dëkkandoo non ñun ñaa ñëpp ay borom baax lañ ñun ñaa ñëpp ay borom baax non problème liggéey wàcc lañ xam moo ñëw rek xam naa am demee noonu quoi waaw magam ji nga xam ne moo faat rakam moom fu mu nekk mag ji mag yi waaw mag yi moom xam naa mooy yoon war na ko téye si rek waaw na ko teg loxo. ay waajur seen waajur lañ nekk woon loon fii. seen yaay lañ nekkoon seen waajur lañ nekkoon waaw seen waajur lañ nekkoon waaw seen waajur lañ nekkoon kon ndax bi mbir yi amee jot nga yéeg ci kaw ba gis fàllu mi nga xam ne moom lañ daal di faat wala amee man maa den ak ñoom kon mais dama génn gis action bi rek après léegi ma gis booy booy bi daanu quoi booy bi tëdd quoi après si la boobu laa fekkee quoi waaw police la deewee fii wala hôpital si kër gi fii si kër presque passeport bi ñuy ñëw fe xam naa bu échange fekk wàcc na quoi waaw passeport yi jox xam naa boobu wàcc na quoi hmm. jërëjëf ñu ngi la koy jaale bu baax di la mos waaw waaw jërëjëf waaw jërëjëf waaw merci waaw jërëjëf waaw kilifa gi maa ngi lay nuyu ñu ngi mi ngi noonu euh, ma jigéen Diop euh, li nga xam ne nag mooy li xew daal en tout cas ci combat boobu la jógee. Mm-hmm. mu nekk loo xam ne boo gisee sànq ma ubbi daan ni bu doon ci jamonoy politique dama gis jamono jooju lu xew ci wàllum violence sàcc ak yooyu ak yu ni mel ak agressé. Mm-hmm. Euh, wala réew mi kii ñu ni terroriste. force occulte. nangam sàngam ba sax mm-hmm. boo seetlu ay manifestation wala rassemblement bi bari aaye nañ ko ndax nee nañ ci coow waaye làmb ji daal. ak li fi xew yépp doon neen ñi koy def nag cautionné wu ne ko ndax ëmma waxul rayal kenn kee waxul rayal kenn waaye daal en tout cas ci biir làmb ji dana sooke yu mel nii werante ba nit bokk ak nit nday ak baay jam ko ba mu jaaree fa waaw jommi jomet jommi jomet kay son yi surtout nag gis nga nag parfois yii yu koy indi son yi Euh, da ngay nekk si kër yaag sa mag yéen a ngi werante parfois si ay détails yoo xamante ne ni yéen mën ngeen ko bañ a bàyyi xel. Mhm. peut-être parents yi mën nañu bañ a teel a artu ci ni léegi nag benn dispute bu ndaw. mën na tax nit ki colère bi mu amoon si yow yëpp mu déversé ko ci ci sa kaw. Mhm. surtout nag fi mu visé pour ñëpp xam nañ ni ku fa laal nit moom. dëgg la su la yàlla dimbaliwul dëgg. maara day taal yi mooy li ko dal nii. mais ay problème mu diw bëgg naa ko euh, diw sama mbër la. Mhm. sooy bu yooyu moom. offre yi war la yóbbu si benn excès bi yi nga xamante ne nii waa ji def na ko te souvent dañ koy faral di gis même bu làmb ji tasee si stade bi. Mhm. lu si bëri ñiy dëkk ci booru stade bi dañuy am inquiétude parce que bu ñu génnee supporteru ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñu malheureux ñi mën nañu jàkkaar jaamaarloo ak ak ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo gañ hmm. gagné souvent mooy indi ay xeex ak am na sama benn xarit boo xam ne moom am mbër la dëkkal nee na bu mhm. mbër mi amee combat day jël ay doomam dem dénkaane kër sëram ba combat bi passé moo yey moo yey parce que lu violence bi ñu ciy wax du mm. lii rek c'est vrai que métti na mais yàgg nañ di ko ci dégg ay xeex ay jamanteeg ay lu ne ci nekk mais bon ñu ngi masaw bu baax a baax a baax a baax a baax ñi nga xamante ne ñoo di waajur yi mm. xam naa ni moom doy na waar trop dëgg yàlla njóogu waaw waajur yi moom da nga mm-hmm. leen di yërëm quoi wallaay wallaay parce d' abord kii gaañu yàlla na koy sunu borom xare àjjana. amiin mais way jur yi da leen di yërëm parce que gis nga. Mhm. Eh, ay eh, mag ak rak. wallaay dégg nga nee na bi mu demee ba pare ba ñu wax ko ne ko faatu na danaan faatuwut. waaw maanaam rëccu gi dugg na. comprendre wallaay regretté na parce que xam na ni li mu def waru ko def. Mhm. def na loo xamante ni lu ñaaw la. Mhm. yaa rey sa rakk waaw kooku mënatu la dund est-ce que mën na si même la tëjoon ba génne la mën ngaa dundati après ci société bi koy waxtaanal ñu kii rey rakkam ah est-ce que dafa am beneen boo sàgganul dara dootoo nekk nit maanaam ah, boo sàgganul dootoo nekk nit quoi waaw parce man jàpp naa ne am na yoo xamante ni bii moom mhm. affaire bu grave la parce que fan la nit di tollu bu mën a def yenn yi quoi parce que ak làmb nu mu mën a toll ak nu mu mën a mel. wallaay nan la nit di toll ba mën a def yenn yi. te comme koy defal xamula waaw diw laa faral laa kii xam nga lii kenn te ñooñ sax fi mu toll nii bu ñu déggee lii sax dañuy am lu leen naqari. Mhm. ñi nga xam ne ñoom nga faraloo nag ñi doon ñi ko taxoon ngeen di werante ba loolu am. mbir mi da leen di naqari trop. donc moo tax nit ki bu loo mën a far far. Oh. na nga ànd ak sa xel. dëgg la. comprendre nga. dafay mhm. sport la. dëgg nañ ko ba ne la sport. Mhm. dafa am ñoo xam ne waruñoo bokk sax ci ñiy dund sport parce que képp koo xam ne kii buñ la gañee nga toll fenn fi mer man par exemple nga gis booy yi. Mhm. ñu gañe équipe nga gis ñuy daw di kii nawetaan yu ñàkk fayda. di ci def mbir yoo xamante ni bi doo comprendre quoi. dëgg la te yooyu jaru ko. wallaay wallaay sport lañ la wax. danga war a xam ne sport lii am loi bi. mais alaaji sport lii la da ngay gagné wala ñu gagné la wala ngeen match nit. mais ji ko ñu bari kër ya fay seen ci kër Ardoise yi. waaw mais lenn ci équipe bi ñoom ñoo koy toj. ñoo koy toj bu match amee ñuy sànni xeer xeer. boo bënn Ardoise yi jàmbari. te dañ cee boole réewande gu extraordinaire. xam nga booy ñoo koy toj léegi booy yi lu leen neex la ne def. Ah, loolu war naa dakk ci li nga xamante ne non bañ a war a dakk. day dakk de. ah ñun fële bu match amee mais gars yi man am na benn jour fi ma gaare noonu ñaan ma kaay jël lu may tax jëm di jëli jib oto ju toj sa bopp foo koy waxee ji waaw waaw dëgg la xeer yaa ngay naaw për xeer yi mel ni mbàccum gerte yàlla musal xam nga rek baatin eh. xeer laal oto mais ñëpp daw na man man doo nga fa des yàlla ma jigéen déggali waate bàyyi musal ba yàgg mu ni baatin <laughs> yàlla ma <laughs> musal baatin <laughs> sooyu waaw c'est que foofu. waaw c'est bu doo imaginer après lu tax xeer dalu ci oto bi. Hmm, te foofa nga doon ñëpp dawal nañ. man donc ma ma mujj de. parce que da yóbbu nañ seen oto. man non yóbbu ma woon sax wallaay. mais yi bi daw ñi ma doon woo yëpp dañ ma wax ñëwal jël sa oto bi. ma xaw foofu alaaji géejuwaay soriwu police. boobu ana police police yaa nga ñëw di sànni lacrymogène ba gazé ñun. ñëw nañ waaw mais booy yi xam nga dañuy kii ak loolu. après am na benn boulangerie boo xam ne mu nekk foofu amul ay vitre mais booy yi dañoo rajaxe lépp vraiment xam nga am na yoo. xam ne ñooñu ay nit leen ay xar juru leen de. non non di amee njaboot seetaan ko ba ba mu toll foofu. Ah, di def yenn yi waaw xam nga nit ñi dañoo. ma jigéen loolu ba loolu. loolu mooy loolu mooy abandon. loo leen mënal leen dara. non xale yi doo tëb ne mënaluma leen dara maanaam gis nga parents yi da ngay mm. am na ñoo xam dañ jot yar seen doom ba mu romb yar. waaw ñu soog koo bëgg a yari. waaw di ko dabu. dëgg la bàyyi ba mu mag nga bëgg koo yar. ñun de temps yee si ginnaaw mooy jamono combat Modou Lo beeg euh, dooni kii léegi tey nga dégg ko mun a doomam ji mënalu ko dara Eumeu ah, Sène fa la jëm sooy bu alaaj <laughs> bu la wax loolu yow tawi nag Eumeu Sène bi ah. mooy bi seen open yooyu ñu doon def di ko defee si state bi gis mhm. nga journée bi Modou Lo di def posam yow sooy bu waaw benn boutique ubbiwul suñu koñ da ngay xëy bëgg jënd dara sax ndax agression affaire bi moom moo moom moo tax léegi dégg nga maam dégg nga maam xam nga loolu nag jar na nag sport boobu ñu arrêté ko no mën nañ ko bañ a arrêté sax mais ñu régulariser ko. non non seen affaire yooyu dakk non du dakk alaaji non ah kay bëri am seen yow alaaji mais ko dem defee ji ko ah open press mais dañuy ñëw def ko ci koñ bi ba noppi fatt waa koñ bi te mbër bu fekkee ne dafa war a bëre ñu ne eh, koñ bi kenn du fi jaar ah, dañuy fatt koñ bi baare ko waaw dañ koy baare mel ni ñoom dañoo am autorisation war nga am laissez bëri léegi bu ñu kii daanaka xanaa laissez passer nga war a mbër mi amoon problème fan yi su ma saan am combat une semaine mm. avant combat am dañuy barricade koñam waaw xool boo gañee itam gis nga Modou Lo jour bi mu bañee parce que talibé ñu séparé jour boobu kenn oto yi kenn amul foo jaar parce que Mm-hmm. fuul bi ñu wax ñu ni mbër mee gañe boo waxee ñu ne la dangaa soxor fekk guddi na nit ñaa ngi bëgg nelaw bëgg xëy dem liggéey ji kenn mënul nelaw ndax ak ay tëgg ak ayu kenn loolu aussi hmm? ngi ci rajo bi nag yaa ngi di nga parcelle dëkk toxoo ko <laughs> kenn xamul fu mu dëkk ah. waaye dëkk del def ni journaliste bi def rek booy wàcc maskawul kaalawul kaalawul ba ni malak naan nii ak naag na alaaj alaaj hmm? gis naa benn journaliste boo xam buy wàcc day kaalawu rek <laughs> <laughs> na kaalaw rek ah. na kaalaw comme journaliste bi buy wàcc ni muy def ah, kaalawul Seydina Omar eh, alaaji baal jàkk la wax moom la moom rek moo fi journaliste <laughs> déggal ay chef bi. ah seen amar casque lay sol kaalawul. waaw seen amar casque day kaalaw ba mu koy <laughs> porox ndool lay wut ci bët yi. aywa kon ba suba ak jàmm meeru meeru Kër Massar yi ñu xam ko. Ah, loolu luñ koy xam. bañ a paasal nee la nekkatul maire wax saa wuyu. saa la. ah bon honorable waaw nee na bëggatul yi. <laughs> noonu moo ñuy jox.